indi ay bagage mat ñaari junni ak juróomi téeméer ay kit yoo xam ne pour jigéen ñi mucc la mu ñëw indi ko ci commune wu Ndiarème Limamoulaye pour maternité Ndiarème dama ne lii Malick Gakou def dafa rafet dafa rëy parce que jigéen ñi ni mu ko waxee dëgg la jigéen ñaa ngi mucc war a mucc jaare fa dem loolu bu fekkee am na leen dimbale ci ci ci ci ci jumtukaay dimbale sage-femme yi yàlla mën a def ko jigéen ñi ñu ci gën a sauvé donc moom loolu moo ko tax a mais li ko tax aussi mooy dafa dafa fàttaliku démb bu fekkee bi ngay juddu sa wayjur wu jigéen dafa dafa wàcc liggéey doo ko ndax ko xam luy ndey ne ndey wala ndey dafa mais yàlla na ko dimbali ko ba tey ji ngi donc def mi ñun en tant que maire ci turu population yépp bureau municipal ak conseil bi dañ koy gërëm sant ko gërëm ko sant ko ci turu ICP bi ak ci turu maîtresse sage femme bi nga xam ne moo nekk njaarim moom la ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla fay euh, jigéen ñi aussi li wóor mooy ku leen defal yàlla fay la kon yàlla na la yàlla fay. santé bi fii la nekkoon ci kaw tund wi ak ak état civil bi ci jamono dox ñu ñu toxal ko fële mais fuñ ko taxal yoon ndox la te ndox du bàyyi yoonam maanaam bu fekkente ne da nga nekk foo xam ne dafa dafa kàmbe luñ fa mënta def it bu ndox ñëwee yëpp ay daje foofu looloo fi problème bi ci mbattante bi nekk ak état civil bi mooy talibale ci corniche ba dafay kamb li jóge wax naa Nimzaat day wàcc li jóge feneen wàcc li jóge feneen wàcc kooku kenn mënu ci dara mais comme poste bi euh, poste santé la ak maternité fu ñuy wasi ni ni ñu defoon ñun bi ñu dikkee ba tabax fa ay euh, maison sage-femme ak yëpp noonu la ñu war a def ba jéem a seet pexe ba délocaliser ko indi ko feneen ci commune bi foo xam ne am nañu yàqin ne bu ci yàlla dimbale parce que là aussi il faut une def C'est une responsabilité la situation bu am dañ koy étudier xool ko c'est nan la def pour trouver une solution.